ni nga ko doon wax sànq gannaaw bu ñu leen nuyoo di wax euh, mbiru Ismaïla Madior Fall euh, di ministre de la justice euh, démba dafa yëkkati ay gàddu teg ko ci kaw mu Touré ne bu deful la ko war ci assemblée nationale. bu mayuwul dinañ ko dàq ñi nga xamante ne nekkoon nañu nag député ak itam société civile bi nee nañu loolu bu mënee am day fekk ñu changer règlement intérieur bu assemblée nationale ndax nag bu ñu fàttalikoo mbiru gi nga xamante ni mooy mbay Ndiaye ak Moussa Moustapha Cissé Lo jamono dañu waxoon ne euh, jaarul woon yoon dañ ciy ànd ak ki nga xamante ni mooy Alxasan Ba ak Jafara Ba. moom mi nga xamante ni ci société civile la bokk ñetti mbir la teg ci taabal bi yi mu jàpp ne war na tax ba nguur gi du commettre erreur dem retirer Aminata toure postam parlementaire. bi ci jëkk mooy ci wàllum principe ndaxte. bu ñuy fal député bu ñu la xësee fal yow député askan bi nga nekk nekkatoo député parti wala coalition muy benn ñaareel boo ko jëlee ci wàllum yoon euh, pour ñu def loolu dañu war a d'abord soppi euh, li nga xam ni mooy loi bi maanaam muy constitution bi muy règlement intérieur bi parce que ci constitution bi ak règlement intérieur bi dañuy wax démissionner de son parti waxuñu fenn démissionner d'une coalition wala yooyu ñetteel bi tax waruñu ko def mooy euh, tey ji ñi nekk APR mënuñu li ñu yàbbi woon ñu jéem ko saxaat ndaxte biñ ko defee Cissé Lo ak Mbaye Ndiaye euh, dañ ko naxarlu woon ñoom ànduñu ci woon ba bi président Macky Sall ñëwee sax dafa indiwaat ndàmpaay jox leen loolu mooy niñ ko defee du yoon génn gi nga xamante ni def na ko moom garde so Sceaux Ismaïla Madior di wéy di jur ay réaction moom mi nga xamante ni député la woon ci treizième législature bi jàpp ni li règlement intérieur assemblée nationale wax dafa leer. dafa wax ni moom démissionné wul ci parti APR bi nga xam ni moo ko taboon ci listu Benno Bokk Yaakaar daf ni moom day génn ci groupe bi nga xam ne ni moom la Benno Bokk Yaakaar nekk donc am na yenn loi yoo xam ni le vote est à kon dinañ mën a xam ànd na ak benn Bokk Yaakaar wala dafay doxalin doxalin boo xam ne àndul a groupe boobu mais député bu nekk am na sañ-sañ ni man ñii laa déggool ñii laa bokkal xalaat ñii fii laay bokk li ñu war a def réellement kay mooy xoolaat li nga xam ne nii mooy réglement intérieur u Assemblée nationale cellule communication bu Aminata Touré jàpp ni gàcc la ci moom ministre de la justice def génn gini mel ñoom ñi ŋànk cellule bi jàpp ni moom Aminata Touré dana wéyal ay activité am député ngir mën a teewal askan wi ci lépp yi nga xamante ni jëm na ci seen jafe-jafe kii di Ismaïla Madior Fall euh, waxul dara lu leer ci mbiru troisième mandat bu président euh, Macky Sall lu ci mën a am mooy Moundiaye Cissé wax ko dite ONG trois d euh, mooy ne président dara mënu ko obligé jamono yi mu wax ndax dafay dem troisième mandat am déet nee na nag lu ci mën a am itam mooy ne peuple bi rek moom moo am kàddu gu mujj gi dañuy déglu ki nga xamante ne mooy Moundiaye Cissé xam nga fu toll nii nit ñi lañ mën a mën a jàpp li président jot a wax ba fii que ne bii mooy ñaareelu ak ñëpp mu jëlu mu mandat bi ndaxte kenn warul mën a forcer président ne ko mu wax ci ndaxte loi bi waxul ne président la war na wax ne dinaa bokk wala du ma bokk donc lu fait que président waxul ne dinaa bokk wala du ma bokk euh, du lu jalgati yoon parce que aussi bu ñuy wax dañuy jiital aussi wàll yoon mais li nga xam ne moo am ba des mooy boo xoolee esprit loi bi bi ñuy tëggaat di def révision bi li ko taxoon jub du woon ci euh, durée mandat bi dinañ doon def loo xamante ne Sénégal kenn du fi defati lu ëpp ñaari mandat loolu mooy esprit loi bi maintenant ba léegi nag mu suñu dégg bu président waxee ne moom dina posé waat ñetteelu candidature moo tax dañ ci war a maan aussi parce que tey booy attaqué président ci loo koy attaqué est-ce que da ngay attaqué nit ci lu mu defagul wala nga attaqué nit ci lu mu waxagul moo tax dañ ci màndu maintenant bu ci wax ci jotee bu ci defee waxee dara lu méngoowul ax li mu waxoon ci boobu la mën a commencé ci wax et bu boobaa askan bi maanaam li ñu naan le peuple est souverain bu boobaa le peuple dina wane ne moom moo yore nguur wax ci leneen imam Abdallah Cissé bu euh, jàkkay Ihsan euh, bu Serigne euh, Madior Cissé ca Ndar danoon jàkkaarlool ak taskatu xibaar yi wax na ci eh, eh, musiba yi nga xamante ni ak saaga yeeg waxante lu ñaaw yi nga xam ni eh, moo fees dell ci réseaux sociaux yi moom imam Abdallah Cissé wax na itam ci tension politique bi nga xam ne boobu ba léegi moom la Sénégalais yi dëkkee di woo ndaw ñi ñu delluwaat ci diine dañuy déglu imam Mouhamadou Abdallah Cissé ci micro Ousseynou Diop. te jàpp naa ni société bu nekk su nit ñi jaamu yàlla. am de bonnes valeur islamiques ci niveau yëpp dafay baax su dee koom dañuy nangu liggéey dañu am jom du ñu wuruj du ñu wor du ñu corrompre du ñu leen corrompre ci wàllu politik dañu liggéey seen askan te yàlla tax tabaarakallahu duñ ca wut duñu moom duñu jël lu ñu moomul te duñu wax lu dul dëgg du ñu it digal askan bi lu du dëgg kon base bi ay valeur la te su li jëm ci wàllu réseau yeeg yëpp base bi rek mooy yar su ñëpp yaroo mel ni ñu war a mel am seen diine nit su amee diine ak base de de de valeur dina am yoo xam ni dina ko jomb dina ko rus bu ñu moytuwul dina tëj buntam liggéeykat ya ñoom ñoo ko wax ñu toll ci ñeenti junni euh, liggéeykat ñu ni euh, euh, poste nag li tax mu nar a nërmeel état yi fi jaar ñoom ñoo leen nërmeel te itam nag mois de septembre ba léegi ñu ni jotuñu seen salaire rawatina nag prime yi nga xam ni dañ leen ko waroon a jox ci ubbite école bi kenn ci syndicaliste ya Ahmed Diouf secrétaire général bu syndicat national des travailleurs des postes ñu déglu ko ci micro Mamadou Fall ak Amadou Ba. 4000 et quelques agents lañ ak seen i njaboot tey ju fekkee ne Macky Sall dafa bëgg a jëg délibérément pour jël ñoo ñu rey leen balaa mu leen rey li ñuy wax lu rey moom danga nga cay dee bu naree rey policiers moom dina ci àndaale parce que duñ ko seetaan yàgg nañu waxtaan amul fu ñu demul. ils refusent de nous, de nous rencontrer. Les acteurs, je ne parle même pas de syndicats, les acteurs réunis de la poste ont demandé à ce que l'État, le, le, président pour recevoir ñu que nous voyons ce que nous la nous proposons pour a génn cette situation. L'État n'a rien fait pour que post adapté aux nouvelles technologies de l'information. Bon, que nous courrier historique, nous avons ci biir avons bi gis ngeen am na postier yoo xam ne ñu ngi si mbedd mi parce que fay ñu location am na postier yoo xam ne inscrire seen doom parce que amuñu lu ñu ko defee waxtu bi ñu wax ak yéen tey le 10 jotuñu salaire ay sensibilisation yu def nañ ko. loolu scandale lu garaaw la ci Sénégal pour président boo xamante ne dafay wax ne gouvernement d'attaque la xaw ma gouvernement xaw ma lan la mais loolu post sentir guñ ko. bu ñu ko mënta sentir si nii nag ñun on va nous faire entendre pour que moom ñu sentir ko ci neneen parce que lii duñ ko seetaan. lu toll ci juróom-ñaari junni euh, ndaw yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu euh, maraîchage daañ lañ leen former accompagner leen ci ñeenti weer ñeenti at yi ñu génn euh, ñi def lu ñu mel moom mooy agence belge de développement nee nañu objectif bi nga xam ne ñu ngi ko doon wut ci wàllu bi am nañ ko ndax wàññi nañu loolu ñuy wax exode rural maanaam ñi doon jóge foofa ci biir Sénégal di ñëw Ndakaaru daal dinay wàññeeku bu baax dañ ciy déglu yenn si jën si ndaw yi ak soxna agriculteurs yi ñoom mën mun euh, ci loolu sax lañ jógee daal di développer seen i activité Aminata bi ak Abdou Karim Bey ci ay leeral ay sensibilisation yu bëri def nañ ko waaye ba léegi nag niñ leen di yoree ba léegi taxul mu baax ba ndaxte ba léegi am na nit ñoo xam ni dañuy fitnaal li nga xam ni moom moo di bàyyi ma yi suñ ci ONG Brooke nga xam ni moom li ko tax a jóg mooy fexe fas yi mbaam yi ak lépp lu xeetoog ñoom rek gën a am condition yu baax. li nga xam ne moom la ñuy gën a liggéey fi mu toll nii ci diwaan bi mooy lépp lu jëm ci métital métital euh, mala gi te ñi koy métital ñu ci bëri borom borom jur yi la mais surtout xale yi te loolu dafa am solo ñu bàyyi ci xel ba su lu may aussi di gis ñu ñu sëf mbaam yi sëf fas yi ba ñu diis ak matériel ak ay nit alors que loolu aussi am na lu ci arrêté bi wax. comportement yi nag ñu ni dañ koo war a changer ndax lii di fas wala sax mbaam bokk nañu ci li nga xam ni moom mooy dundal daanaka njaboot yu bëri yi nga xam ni ñoom ñoo féete ci dëkku kaw yi wala sax léeg-léeg ci dëkku taax yi. jamono dafa tollu foo xamante ne nit ñi talatuñ jur nit ñi dañoo yàkkamti. ñi dañoo joxatul cër jur gi ndax ca maam xamoon nañ jur nañ ko daan traité loolu nag lañ bëgg a fàttaliwaat nit ñi. Uganda nag ONG Brooke ñoom ñoo di gunge atu 2014 ba ko ba fii mu ne sax nee ñu ñetti at yi di ñëw am na yeneen yu ñu fas yéene def yu am solo lañ ko commencé nag moo di ab journée de mobilisation ci village yu Ndiaye Ndiaye nekkee ci commune bu Diossong. ñu daan liggéey wala 2014 ci juróom benn fukki dëkk. wante di gën naa yaatu tey. seen partenariat boobu nga xam ni am na juróom-ñetti at nee ñu tax na ba ñu def ay action yu bëri foofee ci département département bu Foundiougne bokk na ci formé ñi ñuy woowee maréchaux ferrants yi ak itam vétérinaires yi fexe li nga xam ni moom la mbaam yi ak fas yi di lekk gën amee solo waaye itam tabax nañ fa ay bërëb yoo xam ni dana tax ba seen nekkin gën a baax Lambaye la ñu jëm ci département bu Bambey foofu nag liggéeykat yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci fonds d'entretien routier autonome euh, juróomi weer a ngi nii ñu ngi ñu ngi liggéey te kenn fay leen ko euh, ñoom nag euh, nee nañu sax lu ñuy ragal mooy ñu arrêté seeni contrat ñuy nag ay njaboot yoo xam ne fu ne nii jaaxle nañu ba fu jaaxle yem nee nañu nag mënuñu sax joxe dépense ci seeni kër dañ ci ànd ak Babacar Diouf. seenab lim weesu na fanweer li ñu leen dénk mooy fexe ba mbeddi làmbaay yi set wecc wante am nañu problème problème bi mooy danoo liggéey juróom-ñeenti weer mais ba fii kenn fayu leen ab dërëm. yii nag mooy ñi nga xamante ñoom la waa FERA fi liggéey ngi commencé woon liggéey bi le 3 janvier di liggéey ba fii ñuy wax ak mois ci biir 9 mois yooyu euh, ñaari weer la ñu fay agent yi nga xamante ne ñoo nekk ci commune Lambaye di liggéey. kenn fayu leen te ñu ngi xalaat ne seen contrat yi dañ koo nar a dagg remplacer leen ak ñeneen. dañoo arrêté contrat yi parce que ñun loolu moo ñu gën a jaaxal parce que nit ki liggéey yow loo ko contrat am ji jeexul nga xëy arrêté contrat am vraiment loolu lu nu jaaxal la nu ñu jàpp na mbir mi nag dama yaakaar ne politique da cee laxasu dañ koy bañ a tudd mais il faut ñu tudd ko. ci jamono ji nga xam ne école mu ngi tijji. borom kër yi xamatu xamatuñu fu nuy teg seen i tànk. ay xale lañ yoo xamante ne ay jigéen la ñu bàyyi ay ménages yu bàyyi seeni i kër ñii de ay borom kër yoo xamante ne alors école yaa ngi ubbi ñuy liggéey ba weer yi de juróom-ñetti weer nga liggéey ko fay ñu la ko vraiment loolu metti na lool mu ñu doon loo xaay lu nu ñaawlu la. ci jamono ji nga xam ne liggéeyatuñu dëkk bii di Lambaye mu ngi commencé salte ak ay jallu ci mbedd yi ci dëkk bi. Taïk euh, ñu mel ni euh, ancien euh, international bi di wala bokk nekkoon waaw ancien footballeur la woon international Demba Ba bëggoon tabax benn centre académique ca Roff xaalis bi nag waroon na toll si ñetti milliards yu suñuy koppar mu mel ni mbiru suuf bi nga xam ne mi ngi ko doon wut boobu ba léegi sotti na ndax nag jox nañ ko 10 hectares maire ba moom moo ko ko jox ci commune bu Malicounda ci suñu yeneen i xibaar. dinañ ci ànd ak Ndeye Mati Dieng euh, taekwondo euh, foofu la ñu jëm euh, muy ñaareelu édition Open international bu Sénégal bi am les quinze ak 16 octobre bi di ñëw ñu toll ci ñaari téeméer ak fukk ak ñaari combattant ñoom ñëpp nag ñoo bindu ci plateforme bi ki yor président fédération bi mi ngi wax nee na fokk autorité yi daal di leen soutenir rawatina ministère des sports bu ko defee ñu ñu mun a euh, gagné euh, euh, li nga xamante ni moom mooy compétition bi Ababacar Fall président fédération sénégalaise bu taekwondo dañu koy déglu ci micro Mamadou Ndiaye. ñi ngi ci wàccaay gi mais wàccaay bu jafe la bu jafe la ndaxte li ñuy def nii dafa laaj ay moyen te bunt yëpp fëgg nañ ko waaye ba fii ñuy waxee nii moyens yi ci war pour ñu war ko mën ko organiser si niñ ko bëggee amaguñu ko. donc moo tax mu nekk mbir mu doy waar parce que ñi ngi nekk ci juróomi fan pour affaire bi jot mais mobiliser budget bi te nañu te image yu Sénégal def cee dépendre ndax réew mu toll ni Sénégal di organiser compétition mel nii taekwondo bokk ci fédération yi nga xam mu ëpp li muy indi médaille ci Sénégal je pense que organiser un open international labellisé de G2 nga xam ne réew yow ko bëgg am kon bu ñu ko amee Sénégal ñëpp war nañ cee jàpp ngir ñu mën ko def ci ni mu gën a rafetee ci wàllu équipe nationale bi ñoom ñu ngi leen di waajal euh, direction technique nationale ak seen coach yeeg yëpp def nañ ay test pour renforcer équipe nationale bi fexe ba nga xamante ne ña nga xam ne ñooy dem suba samedi ak dimanche di taxawal ci kàddu ci baatu Sénégal mën faa jëlee ndam te loolu nag ñun def nañ ci liñ ci war mais la ca des mooy ñu tàllal loxo ñëpp di leen woo woo nañ autorité yëpp notamment ministère des sports assemblée nationale Dakar dem dikk yàgg nañu liggéey ñu ñu jàppale ci lu mel nii parce que arena du fi donc ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw ñu joxante loxo pour le bien du Sénégal. Euh, champion euh, du Sénégal en titre si euh, wàllu football loolu itam lay doxalee ci yeneen i action comité supporter yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Parcelles Assainies daal dinañuy amal inauguré daal dinañu inauguré ñetti salle de classe ci banlieue bu dakaaru boobu boobule bu bees tàq seen koppar. nag la ñu génnee def ca dañ ci ànd ak Cheikh Sadibou Diarra ak xamidu Ba. jóge ci wàllum football dem jàppale askan wi loolu waa Casa Sport duñu ci jóge ci kàttanu comité supporter yi rawatina ñi nekk ca Parcelles Assainies defar nan ay salle de ca CM unité 20 bi nekk ci banlieue bu Dakar doon mbégte mu rëy. ci ñoom. que ça mu nekk ci école publique yi nekk ci établissement public yi Allez Casa foo dem fekk ko fa ci yenn ci kartie yi Ndakaaru liñ ci euh, jàpp rek moo di ibbi tey jàng tey moo tax kon ñu ànd ñun ñëpp engagé wu euh, loolee ngir mën a rek gone yi jàng ci ni mu gën a gaawee bu weesoo kon li nga xamante ni moo di terrain bi euh, ñun li ñu indi rek moo di ñu jàppale njàng mi. la section Allez Casa des Parcelles Assainies. defaraat salle de classe yooyu. dikkee na leen xaaju million franc CFA su fekkee ni dese nan ay liggéey. trois salles de classe rénovées. ñetti salle de classe la rénové euh, boo dee xool moom la ñu defaraat ay bunt ak fenêtre koppar gi ñu dépensé nag mu ngi toll ci 500 000 francs loolee ngir amal kon yooyu les salles de classe comité Allez Casa jël engagement kon ngir leen lépp ba mu yemb muy salle de classe yooyu waaye yeneen ñetti salle de classe yoo xamante ni rénové nañ leen fii mur yeeg li nga xamante ni moo di suuf si lépp ñu defar ça aussi au niveau des sols. ñu doon ñu ràññeeku ci kaw gradin yi ak supporters yi di jàppale askan wi Casa bi yor raaya bu Sénégal dina door ci dibéer bi saison 2022 2023 biir dëkkam ak jongante ak waa Seneps Excellence bu Thiès. lii kon moo gënoon a uh, ci xibaar yi uh, ci kanam tuuti dinañ dem publicité uh, gannaaw publicité yi le 20h Chérif Ahmed Tidiane Diop dina fi teew jërë ngeen jëf.